xamekaay yi nga xam ne euh, mosu ñoo wote te élection yi ñoom ñëpp bëggoon cee bokk te tey mënuñ cee bokk ndax jotuñ seen carte électeur loolu laay hmm? ñoom lay mastawu di naqarlu di ko di ko condamné euh, di

Euh, autorité territoriale yi muy Sénat que muy ak Sénat bi ñuy liggéeyal ñu fexe ba ñu mottale ko noonu nit ñi voté ci jàmm nit ñi continuer di ci jàmm di wax euh, waa Kaolack ne bu ñu bu ñu xàbbi bu ñu tàyyi ñu des ci kër yi nañu génn ñi nga xam ne togg aña leen teree wote nañ bu ñu bu ñu demee ba sóor wala bu ñu demee ba yàq nañu génn nañu wote ji bu ñu xaar ba vote bi di waaj njeex ni ñuy door a génn Euh, jeunes yi nga xam ne démb la ñu guddee tëdd ndax samedi la te heure xam naa war ngeen yeewu bu ngeen may déglu nii ci midi bi jug leen ngeen naan café bu ñuy naan fonde naan fonde te ñu génn dem voté parce que élection local dafa nekk élection yoo xam ne bokk na ci élection yi ëpp solo ci man ndax la ndax euh, mbir mi ci suuf lañ koy tàmbalee mu door a màgg ci kaw te buñ buggee dëkk bi baax ci suuf si ci kaw lax mu baax gox bi baax àll fokk ku nekk dem wax sa xalaat wax sa yéene ci nan nga ko kii te loolu sa yéene nag ci dëkk bi mooy ginnaaw bi nga xoolee programme yëpp ginnaaw bi nga xoolee profil yi présenté yëpp nga dem jël kenn nga tànnal ki yàlla tànn nag bu ko defee Kaolack nekk des ci nekk Kaolack bu xool naka la ñuy def ba suñu dëkk bi génn mooy ñi nga mooy li may wax rek xam nga ñi doon ñi nga xam ne amuñu beneen réponse la force ñi nga xam ne amuñu benn argument bu ñu mun a teg ci taabal ñi nga xam ne amuñu benn xam-xam boo xam ne mën nañ ko indi muy pexe ci jafe-jafe yi nekk fii ci Kaolack ñooñu ñoo leen fekkee ñoom ñooy wane doole mais doole mënut a tax nga gañe nervier yooyu yëpp amul benn njëriñ fii ñun la on est entre Kaolack quoi kenn fi rey kenn kenn du fi jur kenn xamante nañu jarul nervi yu bëri yi ngay ànd ak

préfecture permettre leen ñu jot seen carte ñoom nañ dem voté leen mottali seen yéene parce que en définitive bu ñu bàyyee Kaolack ci ay yoxo yoo xam ne ay yoxo yoo xam ne daal munut xamut ay alalam rek ko tax a jóg loolu bu ñu ko bàyyee wala ñenn ñi fi bu këram loolu bu ñu ko bàyyee ëllëgu si bi ñu ñëpp ay nekkaat fii di ko rëccu di jàmbat kenn ci rek